ami internet de Pikine TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di amaat mbégte ak contentement di leen dalal ci seen revue de la semaine comme rek niñ ko tàmm di defee ajuma bu jot ñu daal di leen di defal tuuru actualité bi nga xamante ne rek moom moo jot am daal leen koy indil eh, ngir rek lu leen di jariñ dañ koy dooree rek ak tournée économique nag ginnaaw Kédougou eh, Kaolack Kaffrine ak Fatick njiitu réew mi nag ma wutali fi nga xamant Louga Kolda ak Ziguinchor ngir dekk wéyal li nga xamante ne euh, moom moo di tournée économique bi nga xamante ne rek daat na koy door sàkku na ci ki nga xamante ne euh, moom moo di premier ministre Amadou Ba ak membre gouvernement gi rek ngi daal di waajal yooyu les tournées économique nga xamante ne rek cëla ñu jëm ñu daal di rek àddu wax ci mémorandum euh, rek bi détaillé politique gouvernementale jëm ci rek bonne gouvernance ak promotion des droits de l'homme bu 2012 bo rek sunu jonne yalla ya tay la état bu Sénégal rek di waaj feusel ngir di tontu ñu nan Sénégal amul démocratie Njitou rewmi nak ma ngay fatali ni Sénégal démocratie bu amul rek werante mom moo amu un état de droit exemplaire attaché à la bonne gouvernance ak respect des libertés publiques ak rek bu droit euh, doloom loolu la ki nga xamante ne jiitu réew mi daal di wax ci li nga xamante ne moom moo di démocratie rek bu daal di dëgër këcc bi nga xamante ne moo nekk ci réew mi xibaar gi nag mën nga tukkee rek ci communiqué bu conseil des ministres bi weesu ñu daal ci def rek ab taxaw seetlu bu daal di ndaw ndax nag 2012 à nos jours euh, ñaata yoon rek la ñu gis ay nit génn euh, bëgg manifester daal di wax li nga xamante ne euh, moom moo nekk si ñoom te constitution bi daal di leen koy may ñu daal di leen di gàntal am sax ñi nga xamante dañ leen jël daal leen di teg ci kaso bi ndax loolu rek moom moo di démocratie bu dëgër këcc euh, ñaata journaliste lañ jël daal di dugal ci kaso bi ndax rek ñoom it dañuy def li nga xamante ni euh, moom mooy seen liggéey ñu daal leen di euh, jël daal leen dugal ci kaso bi ñuy laaj ba tey ndax loolu moom mooy démocratie bu dëgër këcc ñu daal di rek laajaat ñaata yoon la ñu tere opposition bi amal seeni réunion ci ay sièges yoo xamante ne lieu privé la ak rek li nga xamante ne moom moo di droit de réunion bi nga xamante ne rek dañ leen koo may ngir rek ñu daal di amal seen i ay rassemblement rassemblement wala rek ñu daal di bëgg def benn rassemblement euh, fi ci euh, voie publique bi daal di demandé li nga xamante ne moom moo di autorisation ñu daal di leen koy gàntal ba tey ndax loolu rek moom moo di démocratie bi nga xamante ne moom la njiitu réew mi daal di wax ñu daal di rek jàll ci reneen muy interview bi nga xamante ne rek njiitu réew mi daal di na koy amal ak euh, waa Jeune Afrique ca boobule nag interview njiitu réew mi daal di na ñëw euh, ci 12 ans yi nga xamante ne rek def na ko ci bopp nguur gi euh, wax na yi tamit li nga xamante ne moom la nar ginnaaw rek 2024 waaye tamit. ci relation ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di opposition bi euh, rawatina ki nga xamante ne rek moom moo di Ousmane Sonko ak li nga xamante ne rek mooy débat yi nga xamante ne suscité na ko ginnaaw rek interview boobu nga xamante ne euh, njiitu réew mi nag daal dina koy euh, amal ñu daal di ci tënk rek moom nag xamle na ne rek amul benn regret ci traitement bi nga xamante ne rek moom la ñuy traité ki nga xamante ne rek moom moo di Ousmane Sonko ndax lépp rek lu ñu def ci norme démocratique la ko teg bu kawe nag Tekchana ca force droit rester à la loi Tekchana ca nag anarchie wala kawoo ngir rek daal di jot nguur gi wala rek nga daal di matal li nga xamante ne moom moo di say ambition euh, politique fi nga koy fekk moom Macky Sall euh, dina wax nag euh, naan fekk ñi naan tontu na tamit ñi nga xamante ne ñoo naan Sénégal réewu dictature la nee na bu fekkoon rek dictature moo am ci réew mi ndax rek dinañu yendu di ko saaga bu noppi rek daal di fanaan seeni kër muy ab question rek boo xamante ne da koo samp rek di ko di ko laaj ta dina wax tamit ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ay jege ñaaleem ndax nak moom Macky Sall nee na rek bu góor gi di neex ñëppay ñëw képp daal di bëgg a bokk daal di laaj li nga xamante ne euh, moom moo di sa wàll waaye nag buy naqari doo gis kenn xanaa day waaj a naqari kii di Mimi Touré nag nee na euh, ki nga xamante ne rek moom moo di Macky Sall li ko dal euh, du leen rek lu dul traumatisme post pouvoir nañ ko gunge ci li nga xamante ne rek moom moo ko desee ci mandat ndax nag nee na ki nga xamante ne moom lay gis fan yi muy wax du président Macky Sall bi nga xamante ne moom moom la xamoon doon ko ànd àndal àndal di ko dimbali euh, ci li nga xamante ne rek moom moo di plan Sénégal émergence ci loolu rek dañuy daal di wax euh, ci leneen muy plan B bu parti ex Pastef ñoom nag daal di nañu jël ki nga xamante ne rek moom moo di Bassirou Diomaye fay daal di koy def euh, li nga xamante ne moom moo di seen plan B daal di rek jukk wutali li nga xamante ne moom moo di parrainage bi loolu nag ñi nga xamante ne ñoo ko officialisé mooy ki nga xamante moom moo di Guy Marius Sagna Fall Birame Souleye Diop ak rek euh, ci accord ki nga xamantene mom modi Ousmane Sonko ci la waxtaan rek daal ne dañuy jiital euh, ki nga xamantene mom modi Bassirou Diomaye Faye rek ngir mu daal di dem uti li nga xamantene nak mom modi moo parrainage ñu daal di wax ci ki nga xamantene nak mom modi Bassirou ndax nak comme niñ ko xamé mom Bassirou Diomaye Faye mi ngi nek en détention provisoire depuis avril euh, muy rek fukki muy juróomi weer ak yut muy juróom-ñetti weer yo xamantene rek mi ko ci bi division des investigations euh, criminelles moo ko tegoon loxo ci buntu direction générale bu impôt et domaine ñoo ngi koy topé outrage à magistrat diffamation ak acte de nature à compromettre la paix publique ko li nga xamantene nak parquet doli nako ci muy rek même chef d'accusation yi nga xamantene ne euh, moom la ñuy di Ousmane Sonko mi association de malfaiteurs bu lokolo rek ak euh, entreprise terroriste ak attentat ak complot contre l'autorité de l'État diffusion de fausses nouvelles manam rek fësal ay xibar yi nga xamantene euh, wërul en réunion avec violence mise en danger de la vie d'autrui ca n'a nak ñuy samp at rek pourquoi le choix de Jomay Fay ndax nak yi nga xamantene rek moom moo euh, nek ci ndodd Ousmane Sonko mo nek ci ndodd ki nga xamantene rek moom modi di Bassirou Diomaye est-ce une ruse ngir rek dadi éviter de sërëx yo xamantene état mën nako tek seen kanam question la ndax deug deug Bassirou Diomaye Fay moy candidat euh, bu Pastef wala yi tamit je le rek comme niñ ko defee ci seen euh, plan de communication ndax nak gis nañ plan de communication stratégique bu am solo bo xamantene ne nañ koy tek euh, dimanche genn ne ki nga xamantene mom modi Ousmane Sonko day wax ba di dinaan Ousmane Sonko nan la mëna waxé te nek ci ay loxo yoon ba nak ki nga xamantene mom mo jité ministre des forces armées ministre de la justice ami euh, Aïssata Tall Sall daal di génn def benn communiqué rek di dànkaafu képp koo xamante ne jàppale na Ousmane Sonko def communiqué euh, dinañ dal seen kaw mu nekk erreur boo erreur de communication boo xamante ne euh, ministre bi daal dina ko def ñoom it daal may ampleur bu am solo jëm ci li nga xamante ne moom la ñu ñu di rek lundi bi li nga collecte de parrainage loolu it tamit ñu gis ci affaire bu yees au lieu que que ñoom ñuy dem ci li nga xamantene mom modi population bi euh, ngir dadi euh, tatane li nga xamantene mom modi parrainage bi waaye population bi ñoo leen di fekk si teg nak nag jël sen koy jox comme li nga xamantene rek mom modi participation mu nekk rek lo xamantene lu jéggi dayo lo xamantene koy dooru gis euh, ci histoire parrainage fi ci réew mi ci lolu rek dañuy jall ci ki nga xamantene rek mom modi Tine fondateur d'africa nee na nag Bassirou Diomaye fonctionnaire la intellectuel la bu rek daa di yaru sage jullite naan nag mën na dellu nan nee na nag question bi nga xamante ne moom moo ko jaaxal mooy nan la Bassirou Diomaye fay def ba daa di dellu fi nga xamante ne rek moom moo di ca prison ba moom Alioune Tine nag nee na Bassirou euh, victime la ci jege rek bi nga xamante ne jege na ko kii di Ousmane Sonko ba tax rek muy sàkku ñu daal di koy bàyyi ndax nag poste euh, poste bi nga xamante ne defoon na ko défendre lenn lu nga xamante lu dul opinion wam mënoon nañu ko daal di buñ ci paree daal koy fay fàtte teg ca nag li des rek c'est beaucoup plus politique que juridique teg ca nous attend ñu waxtaan dinañu rek am solution ndax nak administration gardien juge créer ak rek ñi nga xamantene ñom ñoy force de défense et de sécurité yi dañoo soxla li nga xamantene mom modi répi répit euh, dañoo daal rek sonu ci lañuy jallé wat euh, ci parrainage bi nga xamantene mom modi bu euh, coalition Diao 2024 ak rek clé USB bi nga xamantene rek dañu né dañu ko sàcc njiital coalition Diao 2024 nag yóbbu na ki nga xamante ne moom moo di Adama Fall ca kanamu yoon yoon ngir rek mu daal di àtte leen Massène Sène nag jox na sommation interpellative kii di Adama Fall moom nag nee na mu ngi koy xaar de pied ferme moom Adama Fall ndax rek bu ñu sukkandikoo ci kàddu ki nga xamante ne moom moo di Massène seen moo déclaré nii rek moo yóbbu sunu ay clé USB donc nag il va falloir mu répondre de ces actes ñu daal rek def benn taxaw seetlu bu ndaw ci li nga xamante euh, moom problème mu euh, coalition Diao 2024 nga xamantene Mamboy Diao mom moom moo koo ak ki nga xamantene rek mom modi euh, Adama Fall ndax nak Adama Fall di def poste wax ne clé bi nga xamantene mom mo contenir séni ay parrainage mom moko à ñom wa Diao 2024 dal di nañoo génn rek tontu daal né euh, fi nga xamantene fa lañuy parrainage diko collecter ak diko denc ki nga xamantene mom modi Adama Fall du ko ba koy yobbu kon nak ban retournement retournement de situation mo am ba wara rek mëna yobbu mbir mi euh, nañ né yoon dinañu rek éclaircir ci yoon bobu rek lañuy ñuy dess ak journaliste bi di Pape Sané juge bi daal dina inculpé euh, ci rek diffusion de fausses nouvelles ak acte ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique waye nak juge d'instruction premier cabinet Omar Maham Diallo daal dina koy rek may euh, liberté provisoire bu and rek ak contrôle judiciaire chaque aljuma rek bu mujj ci weer bi day daal di rek dem daal di signé teg ci nag mënul génn ci réew mi rek te yëgluwul ba ñu may ko li nga xamante ne rek euh, moom moo di euh, autorisation bu ñu sukkandikoo rek ci kàddu ki nga xamante ne moom moo di avocat am di maître Moussa Sarr ci justice bi rek la ñuy desandi ba tey ak ki nga xamante ne rek moom moo di Mokho Talla Gueye alias nit dof nga xam ni rek dañ ko teg nañ ko lox moom mom nak li nga xamantene mom modi ñent chef d'accusation mom rek lañu ñu daal di ci ndoddam euh, muy rek diffamation incitation à l'insurrection délit d'outrage euh, ci dépositaire de l'autorité et de la force euh, publique ak li nga xamantene rek mom modi outrage au chef de l'État dinañ ko rek daal di déféré moom juge bu premier cabinet Oumar Maham Diallo moy ki nga xamantene rek mom lañu ñu juste li nga xamantene mom modi dossier bi ngir mu saytuwoon ko daal dina ko rek place sous mandat de dépôt dañ koy euh, jeexale ak li nga xamantene mom modi tagat yaram ak cinquième journée bu Ligue 1 nak nag euh, FC dina jakarlo ak nga xamantene rek moy euh, Dakar Sacré-Cœur 16h bu jotee lay doon dimanche à Pikine Jambar Casa Sport jakarlo ak nga xamantene rek mom modi US Gorée Stade de Mbour Guédiawaye Jaraaf dina jakarlo ak Sonacos Génération Foot ak US Wakam ki nga xamantene rek moy euh, jamono dina jakarlo ak Linguère ci li nga xamantene rek mom modi 5 cinquième journée euh, bu Ligue 1 bu 16h30 jotee lay doon fi lañu ñuy dal daal di yëkkati li nga xamantene mom modi moo revue de la semaine di len jox dig daje vendredi prochain di monsieur ñi nga xamantene euh, ñoo japp bu baax baax ci li nga xamantene mom modi revue bi muy seigne Moustapha mo nek ci caméra ak lumière bi di remercier bu baax baax Lamine ah image bu léré rek li nga xamantene mom modi li ngeen di gis di baax ñom la donc ñu ngi len di sant sant bu baax a baax di leen gërëm di remercier aussi ci coordination bi japp na ci bu baax baax merci et à vendredi prochain